cautionnerai jamais l'impunité loolu lu mu indi mooy impunité ak irresponsabilité maintenant comme egg nañ fii nag ba ci cappaandaw gi ba dugg ci situation bi tey sooy seet campagne bi safewul woon léegi nag commencé naa safe Sonko génn na ànd ak Jomaay Amadou Ba mu nga aare laawo jaar na añam waaw léegi suba peut-être Macky dina ñëw ànd ak moom ki jaar fële léegi li mu la dessiner mooy on a une bipolarisation de la scène politique c'est-à-dire les autres candidats même pour ñu am visibilité sax dafay pose parce que même dans l'actualité on parle plus de Sonko de Diomaye de Amadou Ba de Macky parce que scène politique bi loolu la polarisé wu donc nag euh, les Sénégalais tey élection bi enjeu bi mu waroon am folli wuñu dañu war a fal si ban critère la ñu war a fal sur quelle base la ñu war a fal donc nous sommes entrés dans cette situation et le président Macky Sall c' est le seul et unique responsable parce que moom moo toog ne dafay jël dogal ngir dindi benn crise mais au contraire daf ñu gën a dugal ci yeneen crise et crise bi ñu amoon c' est une crise institutionnelle entre euh, le législatif l' exécutif et li nga xam ne moom mooy moom mooy le le judiciaire parce que le Sénégal ne peut pas être une grande démocratie une vitrine démocratique Sénégal bi muy voté depuis ay le Sénégal commencé voté du tey. Mhm. yeneen dëkk yëpp ci ñun lañ ñu doon naw ñun lañ doon seet mais tey demoon nañ ba ci benn situation chaotique boo xamante ni ça s'est installé à cause de la politique et j'espère qu'on va en tirer les leçons. ba léegi yaa ngi def analyse boo xamante ni c'est tellement pertinente par rapport ak li nga xamante ni moom moo di situation politique bu am fii ci diwaanu Sénégal mais tey ñëw nañu ci ay élections présidentielles ginnaaw ba conseil constitutionnel ak le président de la république Macky Sall xëccoontee ci ay wàllu date ba conseil constitutionnel finalement mu daal di mujj ñëw rangé wu ci ginnaaw le président de la république ne nañ dem ci ay élections le 24 mars gi la ñu dëgmal ñu gis le principal opposant mu nekkoon en prison muy Ousmane Sonko numéro de bi mu jiital la candidat Bassirou Diomaye fay nekk en prison tey ñu libéré leen sànq ci say biir kàddu yaa ngi koy wax ba ñu génnee ci la ñuy soog a sentir li nga xamante ne moom moo di campagne présidentielle bi sax ni door na ndax boobu ak léegi santiiruñu woon campagne présidentielle ne am na fii ci diiwaanu Sénégal bon d'après toi tey ban analyse nga mën a def ci coalition Diomaye président boobu ak kii di Bassirou Diomaye fay une fois que mu génn ci prison bi ànd ak le président euh, Ousmane ne nii ni démb daal dina koy tenir ci seen point de presse bi lenn ci ay patriote daal dinañuy jàpp sax ne projet bi nga xamante ne Ousmane Sonko moom la am jaay ko sénégalais projet boobee Bassirou Diomaye Faye ñëw liir ko démb ñoom ñu daal di koy dégg ci seen nopp est-ce que pare nañ ngir adopter boobu les projet waaw sa euh, question bi moo gën a am pertinence parce que c'est une question très très très très large euh, campagne am na ah. Anta Babacar Ngom mu ngi doon campagne Malick Gakou dem na Thiaroye Géej Euh, ñeneen ñu ngi doon campagne mais de manière globale c'est inédit weeru koor gi man boo may campagne six heures du mu la déglu parce que damaa ragal xiif nëbbuma ko après campagne boo xam ne douze jours la est-ce que le candidat aura le temps matériel suffisamment de temps pour faire le tour du Sénégal bu ma dee candidat ma war a dem Sédhiou war a dem Foundiougne war naa egg Fatick je dois parcourir tout le Sénégal mais un candidat sérieux cinq ans ginnaaw war na fekk nga am un maillage nga mën a dem fépp tey médias yi ça a beaucoup permis surtout ak réseaux sociaux yi nga egg foo eggul woon donc il faut que le candidat s'adapte mais en vérité euh, Bassirou Diomaye Faye et sorti ak Ousmane Sonko les gens s'attendaient à leur sortie jour bi ñu génnee si guddi gi ñu bëri fa la ñu dem teeru leen de milliers de Sénégalais mu nekk benn genre attente bu ñu doon xaar parce que ñoom Sonko ci li mu constitué dafa dem ba am benn dayo sur le plan politique et dayo boobu mu am boo fàttaliku Ousmane Sonko première élection bi mu dem 2017 benn député la am plus forest la génne boobu su doon dem ñi koy dara sax du bëri yàlla def mu gën a développé wu donc mu gën a màgg boo seetloo tey même ci élection législative yi boo amee nattukaay Sonko bokkul woon ci législative yi parce que dindi nañ ko député yu nekk foofu sax ci turu yeewu askan bi mun naa ni ñooy remplaçant yi dafa mel ni ay remplaçant ñoo ñoo fa nekk. ay liste suppléant lañ mujj. très bien mooy remplaçant. Mm-hmm. titulaire yi joué wuñu remplaçant yi ñoom équipe B bi moo fa nekk. c'est vrai et pourtant li ñu am seetlu ci assemblée mosuñu ko woon am. mooy ñu dem ba tembo ba pouvoir bi ak opposition bi daanaka xaw na ñu tolloo li nga xam ni moom mooy donc déjà yaa ngi doon gis. Mm-hmm. li ñuy wax bipolarisation. c'est vrai que on a fait parce que bi ñu demee ci élection locale yi soo ñëwee fu mel ni Pikine. APR moo ko gagné parce que tout simplement PDS jaar na ne la yooyu askan wi jaar na la mais bi ñu demee législative dañoo boole li ñu am yépp taxañ ko mu nekk benn say mm-hmm. département yi nga xamante ni dafa parce que élection législative ni muy demee mooy euh, département bu nekk ak li mu député soo gagné dakaar am nga sept député mm-hmm. soo gagné Pikine am nga six li nga gagné si département da koy dem ko sotti ko seen national donc loolu moo leen may li ñu am maintenant euh, li fi am li Wolof Njaay naan kuy kuy kuy kuy kuy teggee ko man mhm. en fait Sonko n'a pa commis l'erreur que PDS bi mu defoon ne amul plan B Sonko on l'avait enterré électoralement mais il la pu sortir à travers Bassirou Diomaye Faye mhm. léegi nag bi Sonko génne dégg nga sa communication déglu naa ko dégluwaat ko j'ai dit il a gagné en maturité su gagnewul maturité dootul amati maturité parce que ci jafe-jafe yi mu nekkoon xam na kan moo ko woon ginnaaw am na beneen lecture il a compris que tey stratégie am na foo xam ne xeex dina la may dara mais am na foo xam ne nekkatul xeex mais ban xeltu ngay teg ban stratégie ngay teg et par stratégie il a réussi à avoir Bassirou Diomaye Faye maintenant ce qui restait c'est pas la personne de Bassirou Diomaye en fait moi j'ai dit si Sonko avait choisi Thiat Seck mooy sama candidat c'est Thiat qui va qui va dérouler mm-hmm. parce que Sonko moo mbir mi moom moo xool ku mu ko yàqal et eh, Sonko a choisi Bassirou Bassirou Diomaye Faye il l'a confirmé bi mu génnee démb sur sa sortie j'ai appris beaucoup de choses première chose d'abord dafa générosité parce que ñun li ñu tàmm mooy man la man c'est la su dul man c'est personne si c'est pa moi c'est personne mmh. il a mmh. montré que il a montré que mmh. am na la générosité politique pour moom de céder pour que Bassirou mën a ñëw au cas où moom demul parce que am na ñeneen ñoo xam ne bu dul ñoom lu kenn donc Sonko am montré ça en termes de générosité politique beneen bi je l'ai écouté mu ne euh, loolu mooy réalisme politique c'est-à-dire demul ci jusqu'au boutisme mais mu nangu ni que candidature am jàllul moom mu xool dans la réalité nan lay adapté woo donc là il a accepté que waxtaan aussi am na mm-hmm. noo ko mën a tuddee mm-hmm. ay dialogue ak négociation ak diisoo lépp waxtaan am na et puis il a confirmé il a dit que yabal nañ ay ndaw pour ñu waxtaan ci ay poñ poñ bii ak bii ak bii lañu waxtaan déggoowuñ ci poñ yi mm-hmm. donc ça, ça nous raison que xëy rek libéré ñi nga xamante ni ñoo génn ci kaso bi man dama considéré ñi duggoon ci kaso bi yëpp mbiru politique moo leen fa duggal mbir politique moo leen fa génne léegi nag dans une négociation chacun da nga am loo ci wut Macky li mu doon wut mooy reporter élection yi la bëggoon mooy li ma doon expliquer sànq pour rebattre carte yi Sonko mën a bokk Karim Wade mun a bokk moom mu mun a ubbi bi mais Sonko ci li mu wax dafa ne il préfère nga nekk candidat moo ko gëral ñu reporter élection donc ce qui fait que inéluctablement on va vers les élections pour le 24 mars mm-hmm. beneen bi euh, Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko c'est une façon communication politique le marketing bu jàll la c'est pour dire que man ak moom nous sommes ensemble nous sommes une paire ils ont même proposé ci seen programme